waa li waral sunu point de presse bi mooy rek euh, dikkat ci li nga xam ni moo xew fan yi te tey ñu gisaat ko fi te ku ñuy wax Guy Marius Sagna jiite ko ànd ak euh, ku ñuy wax kilifa ak assan Diouf euh, ñëw ci commune Malicounda ci ñëw boo xam ni defe naa ni ñun ñi amoon nañ ci tey rassemblement mais dañ ko mujj bàyyi ndax interdiction préfet parce que ñun dañu nek ay républicain nek ñu yaru top ci ginnaaw ko xamné ne aussi dañ ko jox cër té ñëpp xam ko ci yar ak téggine ak respecté kilifa donc tay ñun ñu préféré toog dégg ndigal waye ñom ñu gis dégg leen ci commune Malicounda ñu ñëw fi tay yëkëti cadre yu leen neex teg ko ci déru suñu kilifa yi moy monsieur le maire maguet ak ay conseil mais dal ci ko population Malicounda nda yépp lolu motax tay ñu tok pour am luñu léral tout ci askan bi lan ngeen indi comme leral ci tontu. wa li ci indi rek moy euh, duñu ñu sore ci fond dossier bi ndax fond dossier bi defe naa ni ku ne xam 18 hectares yi ñi wax ci commune Malicounda mi ngi féete ci fu ñuy wax ñaniñ euh, muy dossier bo xam ni bi wax ji ñi ci war jot yépp jot nañ ci préfet woté ci wo chef de village yu ñaniñ wo conseil yu ñaniñ wo responsable dëkk ñaniñ yépp wo service technique yi nga xam ne nekk département de Mbour wo eaux et forêt mboolem koo xam ne tudd nañu ci dossier bi ñu woo la le promoteur ñëpp daje def naa wax fa lu leer naññi keroog ba seen biir préfet mu jox ku am lu la lëndëm ñu tontu la kenn laajteetul parce que lépp dafa mujj leer kon je crois que ñooñu waxaat ci dossier bi intéressé wu te nañ ko parce que indi mooy ñëw defante ak waa Malicounda loolu moo leen indi loolu nag dafa baax ñun waa Malicounda ñu taxaw wax ne ñun ki ñu di monsieur maire ci liñ ko xam muy yar

lim ci bëgg te wax na ko mooy dinaa am tur moom tur boobu la ci wut mais ñu wax ko ni ko tur nag mën nga ko am ci lu baax mais mën nga ko am ci lu bon fexe am ko ci lu baax nag moo gën am ko ci lu bon boobu appel la ñuy lancé suñu frère Guy Marius tey li ñu li ñu gën a intéressé li ñu gën a leer ci mbir mi mooy ñi nekk ci ginnaawam gis nañu leen parce que bu fekkee daf ne activiste la dafa ñëw pour xeex ci dëgg ñu gis ci ginnaam coordonnateur bu Dakar bu Pastef bu Dakar gis ci ginnaawam coordinateur bu pastef bu mbuur gis tey responsable pastef yëpp ci ginnaawam dañuy xam ni kii day wax du activiste politicien te pastef la bokk. dama jàpp ni moom bu fekkoon bëgg na dëgg mbuur justice bi nga xam ne dafa bokkoon ak ñoom ci combat bi te ñuy saluer seen honnêteté intellectuelle ñëw déglu gis càmbar. taxaw ni ko guy sunu camarade nga teggil sa tànk parce que dossier bi nga dugg amul litige foncier amul lu lëndëm benn blocage la am te ci eaux et la amee su fekkonte ne si ko doyloo dëgg la je crois que kàddu yi mën na ko doyloo mais guy ñëwul pour doyloo dëgg dafa ñëw pour yàq commune Malicounda lañ ko waxoon démb nag lañ koy waxaat tey commune Malicounda bi suñu kilifa yi dañ ci sonn dañ ci dox dañ ci ñaan boo lañ bokk ndey bokk baay duñu ñu nangu tey nag kenn jóge ci àll ba ñëw duñu ko yàq terewuñu ko ni ko bu loo dugg Malicounda bu ñu yàq wax ci dañ ko wax ni ko doo yàq Malicounda te tey nag li mu def ànd ak ay nit ñuy ñëw di saaga ay kilifa ñun waa Malicounda yaruñ ci saaga yaruñ ci xaste li ñu yar mooy liggéey ñu bëgg ko wax